Ameth dem na de Ameth nekk xale bu yaru xale bu teey xale bu jullite xale boo xamante du wax ak nit ba xool la ba muy nekk xale bu ndaw ñoo dëkk Casamance laa nekk damay sëy fii Wakaam mais ma gisee statut rek laa moo woote ñu dëgg la Ameth dem noonu laa duggee oto ñëw fii billaay parce xale bi dafa nekk xale boo xamante ne mënuma leen wax lépp ci moom billaahi wallaahi yaru na jullite na teey na maandu na waaw billaahi doo wax ak ma ba mu tiggi xool day sëgg rek su ma ko ne amet wakaam laa dëkk doo ma seet si mu ma dinaa ko ñëw Mama Kaja Mama Kaja dinaa ko ñëw ñun ay dëkkandoor lañ carrément mais dafa mel ni ci famille bi laa bokk waaw ndax seen kër presque lañ fooyee defee suñu lépp bañ màgg mais Mouhamed daal li ma leen di wax ci moom lu ne xeeb naa ko xale bi daal yal na xippee aljana te wóor na ma ni xale bi mu ngi aljana moom yëguma ko man tey laa xëy rek jël sama téléphone di xool rek ma gis benn xale dugal ko statut def rip ma ne lan de lii du dégg ma daal jël sama téléphone woo ñaari magam yi ñun mu jotuma leen ma woote waat kenn ki ma jot ko ma ne ko man li ma gis dégg la mu ne ma looloo am di dégg la de Ameth dem na ma ne ko Ameth dem na mu ne ma noonu laa jóge jël sama saak rek woo sama boroom kër ne ko ah man di am naa dese sama doom mag moo génn àdduna mu ne ma demal noonu laa ci ñëwee sànq wallaahi métti nañu waaye yàlla bu soxlaa ñëpp ay ñàkk wallaahi eh, amali ko doo jur jur yi dëj dangay kii de dëj dangay lii

waaw dañ ko dugal fan